merci donc euh, ni ko monsieur le conseil technique man maa ngi tudd madame Sarr Madeleine Diouf donc euh, maa ngi ministère de l'environnement direction de l'environnement et des établissements classés euh, division changement climatique ni ko conseil technique wu ministre de l'environnement et du développement durable waxee suñu teewaay fii mooy ñu ngi liggéey ak waa waa ISRA ak aussi yeneen institution ñu mel nii waa DGPRE ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey si affaire ndox waa la aussi ñi nga xam ne ñoo ñooy toppatoo lu ñuy wax ay bassin de rétention les digues digues anti-sel ñu ngi fi aussi ak waa ANACIM ñi di toppatoo affaire yu météo ñu ngi fi également ak aussi euh, euh, waa waa waa comment on appelle ça comme comme nag ñu ngi waxee comité national changement climatique ak comme rek ñu ngi fi aussi seen représentant yi mooy comité régional changement climatique yi euh, ak aussi euh, waa division littorale donc du ministère de l'environnement donc euh, pour pour discuter ci programme bi nga xamee ne waa commission économique africaine financer nañ ko Sénégal donc mooy financement bi comme nu mu ko waxee rek pour dimbali Sénégal face ak changement climatique comme jóge nañu ci ci COP 21 yi te ñëpp. Euh, constaté nañu ne vraiment euh, climat baa ngi changé te climat bi nu muy changé mu ngi am ay jafe-jafe si dëkkuwaay yi mu ngi am jafe-jafe tamit si euh, askan bi il faut ñu wut ay solution pour saafara ko donc ku nekk si expertise am si domaine am hmm, donc programme bi dinañu dimbali ah donc pour nga indi ay projet ay programme pour jàppale askan bi am ay activités sur le terrain di nga am activité sur le terrain mais dina am aussi ay activités de de recherche parce que climat dafa nekk changement bi dafa nekk loo xamee ni lu bees la donc euh, dëkk yëpp ñoo si tollu yem mais ku nekk il faut muy gëstu te gëstu bi tamit euh, donc dañu si soxla donc dinañu liggéey ak waa recherche yi noo tax moo tax ñu toog fi ak waa ISRA ak waa aussi université ñu ngi fii pour vraiment xool yan solution ah léegi nag bu ñu nekkee di def si ay projet pilote dinañu jàng lu bëri si projet yi donc dinañu jàngal aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer projet yi au ñoo xam ne ñu ngi fi sax si biir salle yi jóge si ay gox ah pour wan leen ne vraiment euh, yan matuwaay la ñu war a jël pour que jafe-jafe climat yi euh, nu muy ñëwee di gën di ñëw mu mu mu bañ a wàññi tamit euh, koom-koomu population yi loolu mooy taxaw suñu teewaay fii. ñu dugg ñu dugg ci impact yi xam nga sànq wax nañ ne lu jëm ci wàllu PSE muy programme Sénégal émergent wala moo soxalu ko tey ji ci changement climatique duggee rek mën naa wàññi lu bare bare rawatina lu jëm ci wàllu mbay waaw xam nga climat bi moom comme ni nga ko waxee rek ñun ñëpp ngi koy dund ah defe naa depuis quelque temps ku nekk gis na ne taw yi nu mu waxee woon nekkatu ko wala bu ñëwee tamit day ñëw yàq wala bu ñëwee jékki-jékki ñëw ba si tuuti taxaw ah ñun ñëpp ñu ngi koy gis donc euh, euh, loolu mu ngi indi jafe-jafe si si si agriculture bi production bi tamit da koy perturber léegi nag lu ñu même tamit lu nekk si si kii bi nu mu tudd. sàmm bi tamit loolu yëpp da koy da koy da koy da koy perturbé léegi nag ISRA dafa am solo fii ISRA ñi nga xam ne vraiment ñoom seen wàll mooy mooy gëstu ñoom dañu leen war a jàppale pour ñu gën a xam gën a jàng phénomène bi moo tax dinañu liggéey ak waa météo dinañ liggéey aussi ak ñii di nga xam ne ñooy liggéey si ndox bi pour xool yan yan yan yan espèce yan spéculation la war a teg aussi jàng si spéculation yi nga xam ne moom la ñuy jéem a def si projet yi si site yi euh, yan gàllankoor ñoo leen di dal loolu dina tax ñoom tamit ñu jàng ci génn si ay solution pour que tamit ëllëg bu leneen bu melee noonu amee ñoom dina fekk ñoom ñu ñu indi ay solution yoo xam ne dinañ ko mun a euh, euh, euh, lawal si biir dëkk bi jàppale agriculture bi aussi dans ce sens. waaye ci programme bi mooy dañu coordonner benn vole programme bi volet boobu li ko tax a jóg mooy maanaam boo xoolee bu ne nee changement climatique. Euh, léeg-léeg taw bi euh, dafay am faagaagal maanaam léeg mu ñëw normal léeg-léeg du ñëw normal euh, composante boobu nag li mu wax mooy bu tawee ndox yi wala ngaan di yàqu di tuuru di dem dafa bëri composante boobu li fa tax a jóg mooy maanaam naka la mën a valoriser maanaam jël ndox yooyu ba defar ko ba nga xam ne producteurs yi dinañ ko mun di utiliser nga xam ne dinañ ci mun di arroser même bu nawet bi jàllee ñu am ndox moo xam ne dina leen permettre ñu def maraîchage wala ñu def euh, mbayum ceeb ci vallée yi ci bas yi composante boobu nag la ISRA di doxal ci biir projet bi mu lëkkaloo ci ak euh, direction gestion euh, des bassin de rétention mooy la ak direction planification ak gestion des ressources en eau muy DGPRE donc ñetti kuréel yooyu ñoom ñooy lëkkaloo ak ISRA pour euh, liggéey ci ci valorisation bassin de rétention yi ak digue antisel yi. lu jëm ci wàllu variété yi ñu ngi taxaw di ci def ay recherche euh, maanaam bu fekkee ne nawet waaw ISRA moom euh, yàgg na liggéey ci affaire variété mam avant changement climatique yi di ñëw liñ ciy liggéey nag mooy am na variété yoo xam ne bu nawet bi gàttee maanaam bu nawet fekkee nawet bu gàtt la. nga am variété yoo xam ne moom la ñuy wax naan na ngeen ko jëfandikoo bu dee nawet bi dafa gudd tamit am nañ yeneen variété mais euh, actuellement sax boo xoolee mbàllum muy wàllum ceeb bi muy wàllum gerte gi ñu ngi naan defar li ñu naan carte variétale maanaam zone bu nekk ñu ne lii ngeen fa war a béy loolu nag dafay ànd ak léegi comme soppi soppi te jaww ji dafa am day ànd ak li naan information climatique maanaam bu ANACIM waxee ne nawet bi dafa war a gàtt liñ ci euh, wax mooy ñun ISRA dañ naan ah kon nawet bi dafa war a gàtt jël leen jiw bu mel nii wala jiw bu mel nii pour ngeen mën a adapté wu ci nawet bi.